alhamdulillahi alkarimi silmilan alastifaad bifurud wa sunan sakartuhu lianna qad saafani liwatani bihi nafa ma anfani bismillahi rahmaani rahiim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki taskir mi del si waat ci deux mille deux cent soixante-dix di jéggalu ñaari fan yi nga xam ni <coughs> dañoo génnoon te tey jii di ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru baraxlu muy saabaan ci ñi nga xam ni ñooy commission yu mag yi ne ci Sénégal <coughs> di tënk ci xool weer wi ba gis ko ci fukki weer ak yaari ci at mi yépp nu ànd ko ñoom ñun ñii di ko topp kon bokkul ak ñi sukkandiku ci calendrier walla ñi sukkandiku ci eh, ni wii ba muy teru eh, gis nañ ko ci meneen réew mu dul senegal ñoom ñu tënku ci ñooñu kon jàpp nañ ni tey jii la ñaar fukk ak ñoom waaye majorité Sénégal yi daal nga xam ni mooy jullit senegal yi presque ñëpp ñi ci ëpp ñu ngi sukkandiku ci tey la ñaar fukk ak juróom-ñett alakul xaalis muy lu xaw a doy waar lu fi lu lu fi naqaree jële ndax ki nga xam ni moom nee na calendrier bi daal moom <clears throat> lu mu def loolu lay topp yeneen weer yi yoonam nekku ci waaye weeru tabaski ak weeru kori daal moom bu ñëwee mu ne da xool lu calendrier def mu def ko wala bokk bu ñu ne <clears throat> euh, gis nañ ko ca Australie wala gis nañ ko Makka wala gis nañ ko nangam mu donte Sénégal yi wóoruñu moom day woor moo tax um tey um suba du fi jóg kooku nekkatul débat jëlatul waxtaane bokk na ci yi mënatul a dañ wala boog dama koy gis mu soog a dañ man ni dañ na waaye jàpp naa ni du fi jóge lislaam nag moom li muy bañ mooy taazub alayhi salaam noonu la laysa minna man taazaba lan mooy taazub mooy parparloo man na kuy parparloo bokkul ci loolu de parparloo bokkul ak féete parparloo bokkul ak féete waaw xam nga féete fa nga féete ndax nit mënut a jullit te mën a ñàkk féete alayhi salaam noonu la ko faatu te faatu waale woo ak jaayante faatu waale nga ci kon faatu nga ci ak jaahiliya jaahiliya mooy lam fa fekkoon ba muy wootee yéefar yi di sonal jullit yi lànk nekk ci jaahiliya nee na nag ku faatu te faatiwaale woo ak jaayante nee na kon yow faatu nga ci ak ah, ci ak jaahiliya muy réer gu metti googu kon tijaan bi nekk tijaan dëgg-dëgg googu jaayante na murit bi nekk murit dëgg-dëgg jaayante na waaye bu ci nekk am na foo waxaale naa ki nekkul ci tariixa sax te am am am kilifam gu ko teg ci sariya ak akida ba mu xam ko bu baax kilifam googee la jaayanteel kon yooyu nag yéen ñëpp yéen a bokk lu ngeen namm yéen da ngeen a comprendre ni yàlla wàccewu leen fi rek bàyyi leen waaye di leen fee wàcce am lu leen sant ba noppi nag jox leen euh, luy tax ngeen mën a def li yàlla bëgg ci kaw suuf waaw yónni ay yonent jox leen ay téere lam sant yonent bi mu sant la ko ci wéetal ko moom yàlla bu jëf jotee nga jëf li ngay lekk na dagan jox nit ñi seen àq nga bañ a yàq ci kaw suuf bul lore waaye bul lu ngu ñu lor la defal ñi nga bokkal pas-pas muy ay jullit muy say mbokk lépp ñu def ko mu leer nañ ñi ba alayhi salaam bi mu fi jógee euh, laaj ba xam ndox jotal na ñu ne ko jotal nga muy indi ngir mu leer nañ ñi kon nag jamono bu ñu demee ba ñu bëgg fee jëlee séntu weer loolu mbokk yi du mën a nekk du mën a nekk de dañuy séntu dañuy séntu bu baax a baax a baax baax du ñu sukkandiku ci calendrier déedéet calendrier ay jullit yu ci bari jullit yi ñoo ko def eh, xam nga jullit bi toog xayma fukki fukki ak juróom ci kanam mu def calendrier boo xam ni man am naa benn téere sama xarit boobu téere bi def naa deux mille huit la woon mais def naa quinze ans lay diire yoo xam ni da cay def calendrier nga xam ni fukki at juróom ci kanam eh, boo ko xoolee da ngay xam bis bi bis bii lañuy wori bii la ñuy um bii la ñuy tabaski bii la ñuy làngam bii la ñuy làngam loolu buñ ko toppee day mel ni kon séentu jëratu ko donte nag da nga am ba pare di séentu waaye daal eh, xam naa daal loolu daal moom eh, noo ngi dellu siwaat ci eh, yonente bi la mu waxaan rek aleyhi salaatu wassalaam suumoo li ruyatihi woor leen waaye na fekk ngeen gis ko waftiroo li ruyatihi wari leen bu fekkee gis ngeen shawal feeñ fa in xubbiya aleykum fa akmilu iddata chaabana thalathina gis nga ko xubbiya mooy na ngeen ko bu fekkee ni dafa lëndëm ci yéen nag niis na kenn gisu ko man naa ma fa waaye gisu leen ko yéen mottali leen kon chaabaan nekk fanweer suba ci altine ji fi ñu toll nii bu nu ko gisul eh, dañ noo noo bañ a woorloo talaata talaata kon kenn du ko woor bu fekkee ni lëndëm na ba kenn gisu ko ci Sénégal gis nga ko kon waaye nag buñ ko gisee ci gis nga wér rek ah na ngeen daal di woor waaw isaara aytum xilaala fa suumu bu gisee weer bi woor leen isaara aytum moo faftiroo bu gisaatee woor leen fa in xumma alaykum faqdiru lahu Buxaari yi génne na ko gis nga ko bi ma jëkk a waxee gis nga ko Buxaari yi génne na ko ak muslim waaw te faqtilu lahu liñ ci nam rek euh, mooy nga matal sa fanweer boo ko gisul kon yow mu sàkk day ñëw foofu yow mu sàkku lan mooy atte yow mu sàkku ak nga xam ni mooy doon bisu fanweereel ci Chaban ñu tudd ko yow mu sàkku ndax yow altine jot na asamaan si xiin lëndëm niir ba kenn mënu fee gis ngeen waaye Sénégal yaatu na mën naa am xañ na ca fa gën a sori mën naa am ñu gis ko te man maa ngi tëdd ma daal naa fas yéene woor rek su ma yeewoo ci guddi gi wala bët set ñu ne ah weer wi kat gis nañ ko ci Sénégal oriental fekk wooroon naa déedéet loolu dañ la koy tere jaamu yàlla gii dañoo bëgg booy boo ci fas nga xam ni bi weer wi dafa feeñ ci lam war a feeñ nga soog nag daal di nag yéene mu soog nag koor goo xam ne dafa dëpp dëppoo ak fiqu sew mooy ni ñu war a woore waaw ya ci des jotoon nañ koo wax ci ñu bañ nga wooran tey ci dimanche ji woor suba ji altine ji weer feeñ nga xëy daal di continuer woor déedéet dañoo bëgg nag fan yi sës ci euh, weeru koor nga boo fekkoon ngay woor nga bañ koo woor lu dul lu dul ku amee borom koor daaw wala lu dul koo xam ne daa baaxoo woor altine bu ne kooku mën naa woor altine boobu la borom xam-xam jàngale waaw mu ni waaw kon ku woor yow mu sàkku lu ci nekk alayhi salaam nee na man saama yowma lati yushakku fii fa xataasa abal xaasimi gis nga ko ku woor bis bu ñuy sikk sàkk ne ah ndax feeñ na ah est ce que feeñ na wóorunu nee na yow mooy nga abal xaasim mooy gis nga te yow mu sàkk lu tur lay am waaw donte alislaam li ñuy tegtaloo ñu bari ñuy def calendrier yi wax gum wax ni ashaaru tisuun wa ishruuna laylatan falaa tasumu ataa tarawhu fa in xumma aleykum fa akmilu iddata thalaasina lu tax luñ ko ci boole yonte bi yëmul rekk ni ashaaru weer day tisuun wa ishruuna layla ñaar fukki guddi ak juróom-ñeent rek la juróom-ñeent la waaye da caa teg ni falaa tasuumu bu leen woor mukk nag ataa tarawhu fekk gisul leen ko moom weer wi fayal ma aleykum bu ngeen ko xoolee mu lëndëm gisu leen ko fakk miloo mottali leen weeru baraxlu iddata thalathina limu fan weer même bu dee koor it buñ ko xoolee gisuñu shawal dañuy mottali nun loolu la jël de yont bi la jëlul de am na nii bët lu tax ñu bëgg fee jële seentu lu tax lu tax dañu seentu mbokk yi waaw ndax la ak kimilu iddata thalathina moo tax kon koo xam ne yaa ngi taxawee say wartif daal danga war a xam li ngay taxaw léegi duñ koy taxawee gis nga ko jamono yonent bi alayhi euh, sax na ni ci ibnu omar bii mu wax ni euh, am na ku wax ni dafa gis weer wi ñëw yonent salaam ci yont bi ni ko gis naa weer yi fa yont bi digal nit ñi ñu woor mu ni loolu lu tax kon mënuñu ko nit ñi de léegi àgg lañ foo xam ni ñun toog nañ fii booba RTS dong moo fi ne am kuy wax ni Sénégal man yàgg naa leen a yàgg naa leen a war a wariloo def naa mi dëkkan ay côté géejawaay te kooku sax du jullit maanaam ñaata ñoo fa xibaar bi téléphone yi amee ñu topp ko ba laajte dëkk dëkk ba ni ñoom mus ñoo wax ni weeru feeñ na fii ñaata at at mu ne at yu bari am na fi ba mujj duuto xam koy wóolu kon li gën a noppale mooy tënku ci commission yu mag yi moo xam bi nekk RTS nga xam ni bala moo communiqué dina jokkoo commission bi nekk Tivaouane bi nekk Niassène bi nekk Touba euh, te fekk na ñoom it kenn ku ci nekk ci diwaanu Sénégal yëpp am nga fa ñu la fa nekkal euh, boo fa nekkaleet waa Touba boo gisee woote boo gisul woote foofa sëñ Bass Abdou Khoudoss moom lañu ñu waxoon moom balaa waa Touba communiqué moom mu jokkoo ak waa Tivaouane ba xam ñoom luñ gis bu waa Tivaouane gisee te ñoom gisuñu ñu ànd ca gisu waa Tivaouane waa Tivaouane noonu loolu koy kon yàlla ak lu ci dimbali depuis jamonoy sëñ Sidi Muxtaar nim ci dëpp woon ak Cheikh Abdoul Aziz Signor radiallahu anhuma ba léegi majorité senegal yi ñu ngi ànd alhamdulilah alhamdu kon loolu nañu ko weesu alakul xaalin euh, kon hmm, ñu toll foo xam ne nag jamono ak kooru ren gi li nga xam ne moom moo ci euh, dolliku xam naa sax war naa ñëw ci boroom xam-xam yi ni ñu indee euh, gisub ab saay-saay koo xam ni dafa génn topp masalan gis ñu ko daal mu fonk julleeg woor gisuñu ko daal waaye ab julit la kooko ndax war nañoo sukkandiku ci moom indi nañ ci ay leeral ndax kat dañ ni gisug ñaar ñu maandu ñaar ñu maandu ñooy ñan ñoo xam ne ni nga leen da leen a wóolu ba tey ji boo aman quatre millions koo jëkk a gis ñoom yaar nga nga ko ko dénk ndax doy na la ci sa alal mun su kooku kon war na laa doy ci sa diine waaw moom daal faman shahida minkum shahra falyasumhu ak sumu ru'yatihi moom dafa noppal nit ñi daf leen a libéré waaw maanu ndax moom mooy koo xam ni ah gis ñu daal muy tooñ ku lewet la waaye nag yoonam ci jaamu yàlla même bu dee sax kuy jëfandikoo lu xaraam sax waaye maandu na déedéet déedéet eh, kooku kay maanduwul ci maandu ci sariya kay wax dëgg yàlla nag ndigali suñu borom yii ah, tegu la ngant luy tax nga bañ koo def waaye yow yaa coobarewu bañ koo def yow kenn du sukkandiku ci yow ci waxi borom xam-xam yu bare bare bare bare bare kon al ictisaam bi hablillahi jamian wala na tafarraxu loolu moon war xam ne noo bokk lu bëgg buumu yàlla gi yàlla wàcce ko sànni na ko ne ngooy leen ci ngoob leen ci waaw ku bëgg a dem rek mooy lislaam mooy alquran ñun ñëpp bañ ngee ngooy nag mooy tàqalikoo buñ tàqalikoo nag dinañu yonjax te kon dinañu échec wala lu xëccoo lu xëccoo waaw eh, addi sub Muawiya boobu bi mu nekkee Saam ak eh, ak Ibnu Abbas te mu siiw lool ci eh, waa Saam ka nekk dib saaba ki nekk Madina moom it dib saaba waaye ki nekk Madina sukkandikuwul ci ki nekk Saam ci ñaari saaba lañu te Abdullah Ibnu Omar wala Muawiya waaye moo nekk Sham ñoom bañ ko giseet bi Abdullah ibnu Omar yëgee ni ni ñoom ñële gisat nañ ko sukkandikuwul ci gisug Muawiya kooku te dafa wax ni ñoom ñàkk gën sukkandiku ci Muawiya moom lan yonent bi digaloon Abdullah ibnu Abbas laa bëgg a wax laa moom moo nekkal Médine kon daal coow waral na fee bañ a am donte ñu baree bari duut ñu coow ndax weesu nañ ko weesu nañ ko su ko defee nag dinañ gën a ñëw ci waxtaan yi bu baax baax yi ñu war a jiital ci koor ñu ngi koy tegalee ba nga daal koy gën a fàttaliku bu baax ndax ginnaaw yaa ngi ko doon waajal ci ci sa ruux donte mbóojee ni ñoom dañ koy waajal rek ci gis mi yan fexe ba dara du manque ci wàllu dépense yi ak jëngeel yi waaye waajal ko ci sa ruu ak fóot sa xol eh, tuub lu baree bari ndax bàkkaar yi set wicc ba bu koor ñëwee rek dañ lay daal di sol ba nga fees del del def la nitu àjjana ndax fekk na bàkkaar set na dèjà ñu nga meroo lan jubboo ngeen léegi wala def nga effort la nga man yëpp baal nga ñëpp àq balu ñëpp àq gën a sant yàlla bi yàlla bàyyee ba nga fekkee koor gi loolu waaj waajtaay la waaye nag buñ ne koor gi nag bisimilah nag yéen a ngi jëkk a def la ca tegu mooy naafila la ca tegu moom mooy fas yéene nag sàmm cër yi diiraa weer bi yëpp yëpp yëpp kon dinañ ci ñëwaat incha allahu nu yem fii rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله الكريم سلمنا على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني